wasaani amma yajurul balwa sëriñ bi jërëjëf sëriñ Omar Diallo ancien directeur de wax na ni mi ngi fi waa kër maam Cerno Dramé ca Ahadulaay sëñ Moustapha Dramé moom it mi ngi fi waay nag waxtu yu jot na ñu déglu bi waaye foo waxe baax waaye waxe ci waxe ci buntu kër sëñ Fallu moo gën ci yow sëñ Fallu la sàkku sëñ Fallu moo tax nga am waxe fu ne baax na waaye toog ci buntu kër sëñ Fallu sëñ Fallu gàpp moo tax nga am bismillah bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin alqail la in shakartum la azidannakum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 أن أزف إليكم تحايا المحبة والاحترام باسم الخليفة العام للمريدية الشيخ محمد المنتقى متعنا الله بطول بقائه فينا صحيحا معافا سليما شاكرا لكم على الحضور المشرف والتفاعل الأخوي معنا في هذا الحدث السنوي العظيم مجل الذي نحتفي فيه بذكر الغيب البحرية لمولانا الشيخ الخديم قد قدس الله روحه في نسخته الطوبوية الثانية والثمانين هذه الذكرى المباركة التي أمر بها الشيخ أحمد الخديم شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليه من المواهب اللدنية والمنح الربانية بسبب هذه المحنة التي تم بموجبها تغريبه إلى الجبن من عام خمسة وتسعين وثمانمائة وألف إلى عام اثنين وتسعمائة وألف فالشيخ محمد المنتقى حفظه الله ينوه بكم أيها الإخوة والأحباء لهذه الجهود المباركة والتضحيات الكبيرة التي تحملتموها مشكورين لتعيشوا معنا هذه الأجواء الربانية الميمونة التي تتفاعل فيها الأرواح والأجساد تحت سقف الأخوة الإسلامية الصادقة وتتلاقى فيها القلوب على أرضية التعاون والوئام فليحمد الله جل ذكره مشاعيكم وليبارك لكم في كل حركاتكم وسكناتكم وليحفظكم جميعا بما حفظ به ذكره الحكيم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 jaale bokki taalibe bi nga xam ne ñoo bàyyi ko woon seeni kër di màggal si seen bakkan di si yoon wi ñu ñaan suñu borom yërëm leen te xaajal àjjana te ne yaakaar dal ci ñoom wax ndax wala taxsabanna llaziina qutiluu fii sabiilillaahi amwaatan bal ahyaaun inda rabbihim yurzaquun farihiina bimaa aataahum llaahu min fadlihi wa yastafsiruuna billaziina lam yaxlaqu bihim min xalfihim allaa xawfun alayhim wa laa hum yaxzanuun kon mi ngi leen ñaar bu baax njëggalul yàlla ak suñ borom tàbbi leen àjjana di masawu itam nit ñi ci màggal gi waxtu yu mu toll ndax dafa nekk ci biir nawet waaye lépp nag ñu def ko ak cant xam ngeen ne it li fi teew ci ay nit lu nguur gi góor góorlu góor góorlu ndox mi dana manqué moo tax yëg na ni nit ñi nit ñi sonn nañ leen lool ci ndoxum taw bi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 mën na junni at suñu borom doon ko wuyu Serigne ñaan na ko ci Modou Lo Fousseyni ñëpp xam ne pétrole feeñ na Sénégal ba ca dolli ko waat mooy ci biiri xew-xew boobu yi rek mooy taw bi xam ngeen ne sëriñ bi ba mu bàyyi ko kokki dara ñaan ci guddi gi tawta ne ci yoon wi kon ko taw te na nga xam taw taw taw bi barke rek la kon loolu lañ ci doon dugalaat xam naa nodd gi li jees bëriwut waaye nag abrido bi salaati fa inna siddal xaramin fay jahannam bu noddee ñu tekk tekki diglu bala ñu julli rek te sante waxtaan wi àgg incha allah sëriñ bi nee na mi ngi sant di gërëm bu baax bokki taalibe yi nga xam ne ñëw wuy si ndigalu sëriñ Tuubaa li mu jox woon ci bis bi mu doon dundal muy fukki fan ak juróom ñett ci yoor a safar mu sàkk woon ñu ko ci sant yàlla sant yàlla ci xéewal yu rëy yu bari yi koy dikkal te ci tukki géej gi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 bokku ci waa ahlu badrin nga xam ne la ko doon maye faat na ak ramu mboolem aw nitam ba ñu tàbbi àjjana nga xam ne bu dumu leen ci tukki ba ñëpp danañu tàbbi sawra ngir sababu su attanasur Sëriñ Tuubaa nag bi mu ñëwee daa waajaale yéenu ju rëy ak dogu ak pësteef ak yitte ju kawe ju weesu kàttanu doomu adama bi suñu borom xamee loolu ak diisaayu mission bi doo ko daal di gàttandoo tegtal ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu wommat ko ci yeneen yoon wu bees wu kenn mësula jaar ci histoire dallani allahu ala muhammadi wa qaadani muhammadun li samadi li koy sunu borom njëkk a defal du ko muur muur mbalaadum kiiraay mi nga xam ne kooko ko làmboon mbindeef mu yàlla sàkk du la mën a lor lahu xijaaban maanian min adrar summa lahu qaalam si laa taxsal xarar mbalaadum kiiraay moom nag du fi mbasa ju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 boole koog doomu aadama yi tey ak ëllëg mu wax ne sarful mafasidi wal makaarihi ila xayri fii safari jamsatin nee na ca safaral la ko suñ borom defale mboolem luy nuru luy nuru pexe ak yàqu-yàqu suñ borom dana ko jëmale ci ku dul jëmoom Sëriñ Tuubaa wax na ne bokk na ci mbooti bis bii muy màgga tey mooy doon jëma doon abdullahi wa xadimu rasulillahi ak doon jëma doon xalilullahi wa xabibuhu ndax nee na yàlla dafa wax ci alxuraan ne kullu nafsin saa'iqatul mawti kullu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 fàtte ñëpp xoolatuma sëriñ baa jege ñaale mbaa ko ma sori di ca yaakaar seen dimbal sëriñ bi nee na la tax ma am ma xaw moo de moom moo de yàlla mu kaw moo ma tànnal boppam defa ma ci war a doon abdullahi wa xadimu rasuli moo tax mu jël ma génne ma réew mi te jaarale ko ca saw bu noon yi looloo tax mu farataal ci man futtiku ba set ci lépp lu ñu moom diiru fukki at ci noonu laa futti ko di ko liggéeyal li dale ama jëy sasin ba ama sa sin jeex ci diir soosu jaayant naa fekk yàlla fanweeri mbir ak jett yàlla nangul ma ko jënd ko ci man ci kem dayu màggaam nga màggaayam nga loolu nag dootu ko xàccati faw ba tax ma yàlla bu baax te gërëm ko nee na li tax ma jaayantu yooyu mbir moo di allahu subhanahu wa taala dafa jël ay ngëneelam ak i teraangaam ko ci man ci kem dayu màggaam moo tax moo xiir ma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 fala yàlla yebal volcan takk ci kawam ca la faatoo te loolu mooy saaxir sa te la muy fekki ëllëg moo gën a metti wal ashaabu laaxir asadu abqa maqtul la si xabasa fii ndakaaru yaxludu inda man lahul iskaaru nee na ki ki nga tujoon ci néeg ba ca ndakaaru yàlla mer na ko mer mu saabu faw inna lasina makaroo fii jaysati bima taxarrabtu bihi li baksati waajahahum baaxin azizun muntaqim min jaksasin bila intihaa bil muntaqim mboolem ñoo fa doon fexe ci jeexin ngir sànq moom ba atum vaccin yàlla def na jëflante na ak ñoom ci turam yu tudd almuntaxim inna allazina axraju ne turra buxdan bi leen teen uniro durra mboolem ko bokk ci ñi ma doon génn ak bañ ma di ma fexeel yàlla teg na leen loolu joxo bi jeexati bu faw dafa humul baaqi ila niiraan ma damatin mahal xusaani ñoom ñëpp yàlla boone leen boone na leen sànni sawara ñuy rëcc ak pertaanga bu faw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 Sëriñ Tuubaa gasaloon nañ ko am yar nee na soxna jaar moo ñëw génne ko jàpp ci ay mbagam ne ko duñ yàq sa liggéey moom itam bokk na ca la ko suñu borom faye lisaana sidqin bi iyaalin turra wa huwa yujibu man daa mutarra wa caal kitaabati wa caal kitaabati ka kulli mursali yaa man wahabtali ujoora rusuli fii maa jara bayni yow bayna man kafar qablu ukuntali muxjiri nafar yonent yàlla noohin ay jege ñaaram dañu ko dëdd woon ba àgg ci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 yu ko kompaloo fexeel ko daaj ko ci garab ngir faat ko yàlla yëkkati ko ba ci asamaan yi gën a kaw wa maa qataluhu wa maa salabuhu walakin shubbiha lahum wa inna allazina ixtalafu fihi la fi sakkin minhum maa lahum bihi min ilmin illa tibaa zanni wa maa qataluhu yaqinan bal rafahu llahu ilay Sëriñ Tuubaa ca Gabon ba nooy demee ci moom ba jaaxle xëy bis ne dañu koy faat ndax lu ne jéemale ko sottiwut ñoom mboolem ñi dàq tiire wa ahlu badri ñëw dox seen digg sëriñ bi najawtu min fitanil aadaa is qasadu nii benn madaafi turan wa shayatin sëriñ Tuuba ci ñaaram xisa bu gudd la di xisa bu gudd la waaye ku dem ci al minaxul miskiya bu Cheikh Mouhamadou Lamine Diop dawan dagana daa nga fa fekk ne sëriñ Tuuba ci ñaaram ñu ñu defoon Seydina Xiisa defaloo nañ ko ko war fax wa sidniya baada rafi ab kaara ci guddi laylatul xadri ca la xewoon ci la kenn ci doomi sëriñ bi wàccoon ab liggéey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 boo ñu bokk ci ak njabootam li nu war mooy jàpp ko te bañ koo yemale dara ndax waxoon na ci njaarim la bu ñu demee ba jëmi jamono baatinu xasaay di baatinu xasaay ñooy ñooy wër di jëddu kuréel yi bépp kuréel bu ñu jëddu gis nga nekk ci sunu biir aw yiw ak lu baax ñu maase yow leen simbe seen aaji faju seen aaji di faju te duñ te xam lan lan moo ko def bépp kuréel bu ñu jëddu gis ñu nekk ci sunu mbir naka sa doon noona baatinu xasaay bi mooy fenqe seen bopp ya ñu xeexew ci seen biir te duñu xam lan moo ko def asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kon ñu tàllal jërë ngeen jëf euh, mbokki taalibe yi dégg ngeen ba euh, Bassirou euh, moom Serigne Abdou Khadir kàddu yi am solo yi nga xamante ni yëkkati na ko ñu taxaw Serigne bi ñaan ñu doog a tàmbali liggéey bi.